waaw vingt ans après ñaar fukki at ci ren mais gisuñu dara mais loolu mooy faalewuñu leen yëguñu leen ñu ngi war a def anniversaire bi tey la samedi suba la dimanche ginnaaw suba lañ koy def du am benn soutien bu état bi joxe du financier gisuñu dara dara dara mais ñu ngi leen da xamal ne ñun gëm nañu ci lu ñu nekkee parce que suñu mémoire ñi ni ñàkk ñi ni ñàkk daneen respecté bu ñuy joxee joxewuñu dañ ko célébrer dañ leen jox cër bi ñu leen a jox wal leen ni ñun leen te xam nañ ni li am état bi mooy responsable parce que bateau bu nga war a changé moteur moins d'un milliard nga bañ ko colmaté ko bi ñuy dem voyage inaugural ministre des forces armées ministre euh, des transports nekkoon ci ñu dem ba ci digg bi benn moteur bi panne ñoom ñoo xaw nañoo suux yàlla yeggale leen mais war nañu wax dëgg ne mënul dem mais dañ koo nëbb à la ñu def li ñuy def dugaat avion ñëw ils sont bien responsables ñi jaay billets yu ëpp yi ils bu ñu bëggee nag procureur bi fi newoon di wax ne kii le na wax li ko neex na seet diggante ba yàlla te wax dëgg at dëgg loolu mooy yoon ñu nu demande ñu ubbiwaat dossier bi beneen bi mooy dañu constaté ni alors euh, fukk at ak benn léegi Macky def ko ci dëkk bi musul teg tànkam ci benn anniversaire ci Ziguinchor mais loolu mooy lan te muy wër addina bi yëpp fu mu fay dem ku dee mu dem jaale ji la taxaw fa wane la te mun nu ñu ko defal léegi yow tey nga ni du ma defal loolu mais loolu vraiment daf ñu metti trop ñu koy wax ci kaw nëbbuwuñ ko parce que ñun duñu ñu jëw kenn dañu wax ci kaw loolu metti nañu Abdoulaye Wade ñëw na fi ñaar yoon au moins honoré na la mémoire de nos morts et disparus mais Macky Sall mosu fi teg tànk mosu fi teg tànk beneen bi mooy dañoo bëgg mu ñëw ki bii beneen bi mooy dañu bëgg mu jël décret dans la wax ñu yemale ko tey mais toujours chaque mémoire chaque euh, anniversaire ñu daa déclaré ko férié pour nit ñi nga xam ni ñu ngi judd ci après ñu xam lan moo xew ñu nettali leen ko mais loolu lañ bëgg donc dañu bëgg par exemple def loolu doxee ko noonu loolu mooy sunu sunu ittee waaw réew nag lan lañ wax président Macky sal waaye xoolal ñu ngi ñàkk 1953 mooy porté disparu Macky Sall fàttalikul na yaa ngi woon ci gouvernement Abdoulaye xabal ne ay sénégalais lañu waaw ñun duñu n'importe qui te ñoo ñàkk ak yeneen nationalité mais jox ñu cër jox ñu cër bi war moo di tey ñu toog ñu war a préparer anniversaire li ñuy dimbal bi waroon jógee ci yéen waroon na ñëw au deux semaines avant ñu mën waajal lépp mais ñu xamal ne ñun am ak volonté bu ñëwee ñëwul yëpp dañ ko def beneen bi mooy vingt milliards yi ñu joxoon kooku ñoo ko nañ ñu ko génneel jox ñu ko ñu def tendation bi ba pare continuer liggéey bi téye sunu bopp gérer suñu situation ñun loolu lañ bëgg loolu moo ñu moo ñu amal importance li ñu def c'est pas important renflouement bi dañ ko exiger parce que ba bateau bi suuxee Union européenne ne woon na pare na pour dindi ko Abdoulaye Wade moo bañ lu ñu nëbb nañ koy waaw réew euh, ubbiwaat dossier bi dañ koy soxla nañ ñu génn parce que dañu bëgg suñu déey la ñuy def ñoom ñoo ñoo ñàkk ñun ñoo ñàkk ñun ñoo ñàkk ñoo bëgg xool bu dee sax ay yàq la ñuy gis ñu gis yàq yi ñun loolu lañ bëgg ñu def suñu déey waaw Atlantique moo gënoon gaaw ba mais de ubbi na ñaata at la def mi génne nañ ko waaye nañu bàyyi affaire caaxaan yi nañuy génneel bato bi ñu waxoo te bu mémorial amatee moom bu yebalee kenn tey déwén seen na ñëwal boppam ak ku fi munti ñëw ak ku munti falu ba pare am na lu ma fàttali wax ci français euh, maire u Ziguinchor bi Ousmane Sonko ñu ngi wax ne na ñëw on lance cet appel là Ousmane Sonko na ñëw Ousmane na ñëw waaw Ousmane Sonko na ñëw na ñëw fekke waaw parce que loolu mooy rôle am en tant que maire de la ville de Ziguinchor na ñëw fekke ñu invité toute l' administration nañu taxaw teewee mais bu kenn wax ne yëguma ñoom yëg nañu xam nañu parce que nag ñun kenn duñu foye dañoo ñàkk mi ngi métti lu lool suñu xol gëm nañ yàlla sant nañ yàlla mais nag ñoom ñi fi na yàlla teg nañu xam ne ñun ñoom ñoonu war a gunge ci lépp ba xam ne lii ba pare euh, psychologiquement am na ñoo xam ni nekkatuñ seen jàmm kenn toppatu leen bàyyi nañ leen loolu la orphelin yi jóg fi newoon fii euh, ah, luñ leen defal mais ba war leen def sax vraiment am loo xam dañ leen war a favoriser ñu ngi jàng am seen bac nekk génn université mais jox leen sax ay liggéey ñu mën a sax dimbali ko ci loolu mais loolu yëpp dara amu ci mais pour lan loolu on comprend pas. ki fi ne woon ministre de la culture Abdoulaye Diop ñëpp xam nañ parce que bu ñu ko joxee chantier bi mais la première chose ba mu ñëwee dafa war wax association bi ñëw leen ñu xool nu ñuy defalee mais daf leen a kenn taxawu fi mu def lu ko neex xamuñu luy gu xamuñu luy génn tey la mu taxawee ba léegi dara sottiwul mais c'est de la maguy loolu mooy lan. place du souvenir Abdoulaye Wade defoon na pose de la première pierre ça fait plus de 15 ans waaw ba léegi anamu waaw anamu dara amu fa Atepa Goudiaby jël na ne moom bu ñu ko autorisé mën na ko construire ci xaalisu boppam 1 milliard 500 millions mais ñun d' accord nañ ci président na ko avalisé jox ko ko mu def chantier bi parce que ñun dañoo bëgg ëllëg bu ñu fi jógee ñu fi des mën di xoolee loolu ak ñi fi xool ñi fi jógee. mais dañuy am lu nëbb parce que man ñëw naa taxaw en tant que président de l' association ma présenté doo dugg. ndax lan lu ñuy nëbb lan ñuy làq ba jaruñu ko parce que ñun dañ leen filmer xool yàgg yàgg nañ fi dugg nañu xam ne ñun ñuy def nii bu fekkee dañuy làq wala ñu nëbb ñun dina la feeñ ñun tiituñu lool te wax ji ñuy wax ñoo ne ñoo ko jël en responsabilité waxuñu kenn mémorial bi mag yi bu ko ëmb moo tax ba léegi mënul sotti donc tey jii tey vraiment ñun wax na état bi ah vraiment dañ ñoo joxul gëdd bi war joxuñu nu cër bi respecté wuñu dañoo bëgg a puus ñu fàtte te du ñu fàtte parce que ñun ñoo ñàkk ñoom bu ñu ñàkkoon du ñu fàtte donc ñun dañoo bëgg ki fi yàlla teg ñu jox ko gëdd bi muy Macky Sall ne honoré mémoire ñu ñi dee te vraiment mu ñëw fii di teg tànk di ñu ko di dimbali aussi famille yooyu parce que vraiment mi ngi dimbali yeneen famille war na leen mën di dimbali waa lool c'est vraiment important mu leen dimbali leen ko parce que ñu ngi nekk ci besoin amuñu dara